le ministère des télécommunications au moment où les libertés de la presse sont piétinées, bâillonnées, écrasées, où un journaliste comme Pape Alignan est embastillé arbitrairement. Et vous voulez qu'on vote les crédits d'un ministère qui se tait quand le Sénégal fait des reculs démocratiques terribles. Voilà ce qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'on ne votera pas ce budget-là. li nga xam ne day jël suñu RTS béykatu Sénégal bu ñuy naan sonn nañ wuy wàlloo Aquatec sonnal nañu Flexo sonnal nañu RTS du leen wane mu mel ni ñooñu bokk ñu ci Sénégal leur souffrance n'est pas digne d'être montrée par la RTS baykat yi sàmmkat yi suñu bokk suñu mbokk yi nekk ci village bu ñuy jooy amuñu courant kenn du leen wane RTS pourquoi ngeen teg ko fan et vous voulez qu'on vote ça voter pérenniser ça. Or, nous ne voulons pas pérenniser ça. Nous sommes ouverts à des discussions avec Benno Bokeyakar. Quelles sont les conditions sur lesquelles on peut voter Nous les hey, Sénégalais, si nous avons des nahar, nous avons one RTS. Même les travailleurs de la RTS, si nous avons des nahar, tu y a une télé Vous trouvez ça normal Moi, je ne trouve pas ça normal. On m'a RTS, l'IGEUMA RTS. Mais comment est-ce que nous avons RTS ils le disent ailleurs. Et vous voulez qu'on non parce que pour nous voter lii mooy continuer loolu mais ñun bëgguñu continuer loolu mais ce pays il est bloqué c'est pas nous qui le bloquons il est bloqué par les détournements de deniers publics sàcc xaalisu askan wi il est bloqué par les mandats de dépôt oui le président Macky Sall est un champion champion des détournements c'est lui qui parraine les détournements dans son pays là c'est lui qui parraine la torture dans ce pays là c'est lui qui toog c'est lui qui parraine les emprisonnements dans ce pays-là. Et nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est le champion également de la servilité devant l'impérialisme. naka la ñu mënee nangu suñu ay données personnelles maanaam suñu ay messages xalif généraux évêque membre gouvernement ak ñeneen ak ñeneen ñu koy externaliser di ko jox ñoo xam ne ñu ngi bitim réew suñu ay données personnelles loolu moo xew Sonatel ak Orange. waaw bëgg naa ngeen bañ ma ndax yii bëgguma ngeen bañ ma wala ngeen bañ ñu ñun waa Yewwi ndax li ngeen dégg ndax li ngeen jot lii rek la ñuy défendre du leneen le sommeil de la raison produit des monstres mais un pays sans journaliste debout un pays sans journalisme d'investigation debout produit des monstres day jur ay dëmm te bëgguñu ay dëmm Sénégal donc on a besoin d'un journalisme debout bravo à vous